info waaw wasaare ñi ngi fii Bantamba TV Dakar 221 soo leen baaxee ñu dem grand yow rek la ñuy xaar ma dem ah jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi di nuyu bu baax a baax a baax ñu ngi leen di nuyu yéen ñi ni seetaan ci télévision yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi ni seetaan ci internet bi bàllee ñu dañuy commencé waat micro ba ki commencé taxul woon. amul solo jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen bëggee am nañu mbégte jàkkaarloo ak yéen am nañu mbégte mbégte nekkandoo ak yéen fii nga xamante ne nii mbokk yi mooy stade Amadou Barry stade bi nag fii ñu nekk mbokk yi bu ngeen ko xoolee xam ni bërëb la boo xamante ne nii xale yi nekk ci banlieue bi. ñi def tàggat yaram bu ci mel ni basket wala ñuy def handball yaakaar naa ne fii seen bërëb la ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax xale yi nekk ci saal bi yëpp ñu leen di béggee ñëpp di leen siyaare waaye tamit ñu nuyu kilifa yi nga xamante ne nii ñoom la ñu àndal wala ñoom lañu ñu fekk si fii ci géejawaay yi yi tey li di waral ñu teew fii ci géejawaay di fi amal signature de contrat bi c'est parce que le 9 janvier dafa am bis bu mag boo xamante ne dafa war a am fii ci géejawaay waa géejawaay tëgg ko pour waa géejawaay loolu nekk lu am solo bu ñu nee waa géejawaay tëgg ko ànd dooleel làmb di coach yi nga xamante ne wala écurie yi nga xamante ne ñoo nekk biir géejawaay boole seen doole ne dañuy jàppale xale yi nga xam ñoo nekk ci biir écurie yi nekk géejawaay loolu nekk une première ci làmb ñu ngi soog a gis mbooloo goo xamante ne nii ay écurie yi nekk ci benn gox ñoo ko def ngir jàppale xale yi nekk ci seen ay gox loolu lu am solo la. ñu leen di siyaare waa ànd dooleel làmb di leen ñaanal seen booloo bi yàlla sunu borom def ci ndam di leen ñaanal seen booloo bi yàlla sunu borom sàmm leen ba lépp lu ñu ci bëgg ñu def ko ci ngir làmb gën a mën a jëm kanam ndax xale yi ñun ñii rek lañu am ku leen di jàppale rek yaakaar naa ne yaa ngi jàppale la jeunesse sénégalaise ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax ànd dooleel làmb ci président ci turu président bi monsieur Sylla bëgg ceeb maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax ànd dooleel làmb dañoo boole lu rëy ndax dañoo jël xale yi nga xamante ne nii ci banlieue bi kenn gënu leen ci xareñ ñu boole leen ci bisu la neuf mbokk yi bisu la neuf yaatu na lool waaye balaa ñoo jëm ci bisu la neuf ak li nga xamante moomooy moom mooy am ci bisu la dañoo nekk ak sunu ay kilifa dañoo nekk ak sunu ay papa sunu ay maam nekk ak ñi nga xamante ne nii bu làmb ji taxawee ñoom am nañ ci wàll suñ ko waxee suñu xel dem na ci sunu papa Burxaan Wade bëgg ceeb tey moom xam naa ne silla silla ak wadd waada yu toog ci benn table ndekki bu fi ñëw dinañ ko lekk ñu koy bëggee bu baax a baax a baax a baax waaye du nuyu ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo ñëw tey teewal ki nga xamante ne mooy monsieur le maire Alioune saal ndax ànd dooleel làmb moom la ñu jël bis bi dara jaaleel ko ko moom ak yeneen nit ñu baax ñi nga xamante ne ñu ngi fii biir Géejawaay waaye délégation bi suma maam moo ko jiite suma maam Mor Seck ma koy nuyu bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam moom ak ñi mu àndal ñëpp di leen bégee di bégee bu baax a baax a baax sama papa Fara mbay moom chargé de communication la ci maire bi nga xamante ne ni mooy Alioune waaye dama fee ñëw fekk fi suma ay mag fekk fi suma ay xarit Abdou Karim fay mi ngi fii ñu koy nuyu bu baax a baax a baax a baax ah sama mag ji Daaru Mbay Bour Géwél ma koy bégee jëri ngoone mi si ndaat maa ngi lay siyaare bu baax a baax a baax waaye tamit mi ngi ànd xaritam bi nga xamante ne ñoom ñaar ils sont des inséparables yal na yàlla yàggal seen ànd yal na yàlla lafal leen cat muy Mansour mbay ma koy nuyu bu baax a baax a baax a baax suma papa mi ngi ci table bi toog muy alaaji papa Mbaye ma koy nuyu bu baax a baax moom it di ko siyaare mbokk yi làmb bu amee sécurité dafa am koo xamante ne ni dafa xar tànk tubayam ngir ñii ñëw ci làmb mën a am jàmm ngir ñëw ñii ñëw ci làmb bu ñu ñëwee ñu mën a ñibbiwaat ci jàmm muy percune ma bëgg ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax ndax liggéeyam bi muy liggéey ci làmb percun mu ngi jàppale xale yi léeg xale dina ñëw heure bu passé heure bi nu ko wax waaye percun dina ko nëb léeg-léeg xale dina nekk ci biir làmb yëfi xale jàpp ko muy def lu ko neex waaye percun dina ko nëbb kooku mu ngi jàppale xale yi yàlla na yàlla fay la kontaan nañu ci yow bu baax a baax a baax a baax mbokk yi balaa ñuy sori balaa ñuy def dara damay woo sama xarit lëz mu ñëw taxaw nii sama maam laa bëggoon mu tijjil ma wala sama papa pambaay mais sama xarit bi laa gis Leuz ànd doole làmb def lu rëy boole xale yi nga xamante ñoo gën a xarañ ci banlieue bi muy bisu le 9 janvier ci turu ànd doole làmb yaakaar naa ne ci ngay wax Leuz bisu le 9 bisimilah. salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp seen tur seen sant di leen ziare. di wax onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamina di nuyu sunu papa yi fi teew yëpp waaw di nuyu waa axlu ànd dooleel làmb lii ñu def nii tey du luñ doon du luñu ti xëy rek def ko luñ dox yàgg koo dox yàgg koo xalaat nekkoon sunu mébét yar booyi ñu nekk suñuy tout tànk di bëree suñu kanam di bëree suñuy kanam ba si yàgg ñu am ay boo yoo xamante ni parfois dañuy toog làmb mel ne ku leen di xaw a naax saay teñ bokk ci làmb ñu xalaat si suñu biir ku si mel ne suñu président Serigne xalaat si suñu biir ne nañ jéem a organiser benn ànd dooleel làmb pour jàppale xale yi léegi bi ñu xalaatee loolu nekk si di si dox di si dox di si dox ba si yàgg mu taxaw bi mu taxawee dañoo jig jigi ba si yàgg ñu ne nañ dem seeti ay nit te ku ne xam na ne buntu nga fëgg ko mooy yoonu bunt bi waaye ñu wax la entrée da saa baax ñu fëgg buntu Alioune Sall premier monsieur le maire mu ne ñu entrée ñu juge foofu fëgg Lat Diop mu ne ñu entrée ñu jóge foofu fëgg Mor Gueye mu ne ñu entrée ñu jóge foofu fëgg monsieur le ministre Amadou Xot mu ne ñu entré ñu fëgg mbëri mbëri nañu entré ñu fëgg Modou mbay mi fekk ko muy nekk si ay yeneen mu ne ñu entré ndax li ngeen def dafa rafet ñu nekk si nag di si liggéey si liggéey ba heure bii te yaakaar ne mbër bu demee bay bëreel ay entraîneur am war naa wane fula wane jom wane discipline mu rafet neex parce que làmb ji ñun ñoo ko moom ñii dañ ñuy jàppale rek ñun ñoo war a defaral booy yar leen former leen leen ci yoon bi bañ xam ne làmb ji du ay caaxaan ay liggéey la liggéey yóbbu sa kër yaay dafa neex kon boo ci nekkee bul fo respecter sa bopp respecter sa liggéey moo lay jàllale Modou Mbaye naa la xamal ñaar de ah naa la xamal ñaar de làmb ji mën naa ko tudde tur tey làmb ji ñu jëm nii moo tudd ngéntel sinwaa ngéntel sinwaa les luy ngéntel sinwaa ngéntel sinwaa mos nga faa dem man taxi naa ba dem ngéntel sinwaa ah man maay dawal taxi ba dem ngéntal sinwaa loo gis ci ngéntal sinwaa cing-cing yaa bari ngéntal sinwaa loo gis cing-cing ya day bari tey ñun ñooy ngénte dama yaakaar ne mbëri dinañ bëre lu neex ngir man bu dul dara tey laa musa téye micro mais tey laa bëgg mbëri wan ma fula wan ma fayda bisu ngànte yi bu mu dàq suñ bis bii non violence bëre ba pare ànd kottante ñëw si plateau Modou Mbaye ñu waraat làmb loo xamante ni lu bees dàq la ñun ay xale lañ dañoo war a liggéey yóbbul suñu yaay mais waruñoo fo ndax ay kilifa ñoo fay ñëw ku toll ni monsieur le Alioune fu muy ñëw ay Lat Diop ay Amadou Xot kon yéen bis bi ku leen ne du day yomb da leen di nax gëm leen seen bopp ngeen bëre ku le maire gañ naa la xamal ñaar de ale boo gis am na retour Modou yal na la yàlla taxaw bis bi li nga siy taamu yal na la ko yàlla defal mention jaaja jaajëf kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax ngeen del suñu la booy dina bari cing-cing de am ngeen problème la sa ko wax mbokk yi bisu la waa ànd doole làmb li ñu ci def dafa rëy arpël boole ko ak këll gi waaye sura moom ak am géant ñoo fay daje caatu njaga saar moom ak mbaytin bu saint naar moo fay daje ak Ngor Diouf géant ëm dina fa laale ak tokoro ki nga xamante ne mooy aatu 1 dina fa laale ak île de serpent mbokk yi am luur dina fa daje ak x9 lansaane numéro 2 dina fa laale ak rouge blanc waaye combat bi nga xamante ne nii combat bu am solo la ci muy alliance Balde ak Boy Pire muy combat boo xamante ne bu neex la waaw waaw ànd dooleel làmb kontaan nañ ci yéen sama papa Pape Mbaye bismillah waaw a'uuzu billahi mina sheytaani rajiim wasalaatu wasalaam ala ashraf al mursalin saydina wa mawlana muhammadin jërëjëf sëriñ Touba ñu ngi leen di ziar bu baax di jël nuyoo bi teg ko ci loxo commandant Thioune sama grand frère suma xarit di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér waaye ma fekk fi tamit sama mag Bourkhane Wade di ménager Boy Niang ak Djili Wade sama doomu ndey suma xarit waaye nag association des communicateurs traditionnels bi nga xamante ni ci laa bokk fekk fi suñu président El Hadji Mor fekk fi tamit Fara Mbay Karim Fay ma Jéeri Ngoone ak ki nga xamante ni mooy Mansour Mbay ma jaaga ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci yoon wi di ñëw yëpp maa ngi leen di nuyu du di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal gudd fan a wér di ñaan yàlla lu fi sa papa def xam nga sa papa def na fi lu kenn deful waaye yal la yàlla may nga duble ko triple ko am nga yar am nga teggin yëg nga ku la mag yëg nga sa waajur yëg nga sa kilifa yëg nga ñëpp te am nga sa ngërëbal waajur yal yàlla defal jàmm ma ñëw nag ci bis bi nga xamante ni mooy dooleel làmb fii ci géejawaay Chérif Chérif maa ngi lay nuyu di nuyu sama doom paate Iba Dieng léegi laa jeexal émission dama nekkoon en communication directe ak bés bi Iba dugg na paate dugg na la ñuy wax ci bi ñëpp dégg nañ ko waaye ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla ngeen ci duggee bisimillahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin géejawaay dafa yaatu écurie yi fexe ngeen ba def ko muy benn amatul président écrit waalo Balla Gaye Mor Fadam ñëpp benn lañ léegi ànd dooleel géejawaay lañ tudd gis ngeen ki ngeen war a gis muy monsieur le maire Aliou Sall moom itam la ko war ci bés def na ko yëkkati na xaalis teg ko ci loxo ñu ko wóol ñu wóor loxo yi sell la lañ ca war tam yéen def ngeen ko tànn ngeen xale yi ngeen am yaakaar ci écrit yi boole leen ak xale yi jóge Pikine ak Parcelles mbooloo jël nag bés bi delloo ko ki nga xamante ni moom mooy Aliou Sall ah mbuus nag deful lu gën ku la teral moo la teral teral na leen jox na leen xaalis taxawal ngeen combat yi leen neex waaye yéen it jël ngeen bés bi delloo ko ko mu envoyé fi El Hadj sekk Seck nga xam moo représenté monsieur le maire ci kanam tuuti di ngeen dégg la ko monsieur le maire wax ak lam ko yabee waaye ñun en tant que communicateur traditionnel waa ànd doole lamb tam leen ca war ci ñun def nañ ko ndax nee nañu woy yi tëggkat yi micro central bi lépp dara du ci génn géejawaay woo ma depuis un mois ni ma lañ lay fay. ma wax leen ñu woo nabu yaa daan nabu wax leen ñu bind woo sàll ngaari suñu doom lépp ñu delloo ko biir géejawaay kon nag ñoom gàcce ngaalaama xale yi ñu ngi leen di ñaanal daal yàlla mi am te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na yàlla defal leen jàmm yàlla may leen xéewal defal na réussite ci seen bés bi di ñaan yàlla première édition bi balaa saison bi jeex ngeen dugg ci seen deuxième édition ba ngeen mën a continuer nekk ay promoteurs yoo xamante ni dañ leen di dégg fa ñuy dégg tey ji ñoom Gaston ak ñoom Luc Nicolaï ak Serigne Modou Niang asalaamaaleykum wa rahmatullah jëre ngeen jëf. jaajëf père ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax bis bu taxawee dafa am ñoo xam ñoo si jàpp bàyyi seen yitte nekk ci làmb ñu leen di woowee ay manager. ba tax na père Bourkhane Wade mi ngi fii bisimilah papa gars yi dinañ ñëw ci signature bi léegi signature bu yëngu sax dañ koy yëngal léegi mais père Bourkhane Wade bisimilah père kaay taxaw nii rek kaay rek père waddeen nga man maay sa buur maa la woo kaay wuyu ma ah vraiment quoi <laughs> bismillah ma teel la waaw teel ma onze bi kalimaati laay taamaati min sharri maa xalaq ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Baay Laay ak Seydi ñu ngi nuyu ñu fi toog ñëpp jiital ci nuyoo bi nag euh, délégation bu mag bi nga xam ni moom la fi maire envoyé di nuyu aussi les représentants ànd dooleel làmb te Chérif di seen président mook ko président Pathé Sylla ak Leuz ak Djili Wade ak ñeneen ci bokk ñëpp di nuyu nag sama mbokku manager yi di nuyu mbër yi di nuyu entraîneur yi di nuyu représentant CNG ak képp koo xam ne rek yaa ngi fi toog di wax ni ah, dañuy kontaan ci li nga xam ne loolu la le maire Alioune Sall def parce que may nit jën jàngal ko napp ko gën di leen woo ci ay ruq di leen yëkkati ay cent mille ak deux cent mille mënoon na ko def mais dafa ni ñii su leen mayee doole li nga xam ne mooy làmb te xale yi di ci di ci euh, jëriñu naa leen jox ay moyens yu tax ñu mun di def seen làmb comme il se doit au moins moom comprendre na comprendre na les actions du président de la République ci sport en général la lutte su defaree benn budget wu trente deux milliards teg ko fi dafa war am ay mesures d'accompagnement te maa ngi woo yeneen maire yëpp ñu def comme le maire Alioune Sall kenn ku nekk teg trophée du maire comme ça mën nañu am sax un champion national may wax rappeler nit ñi rek tuuti lamb lu ndaw rek ñu ne violence violence barki démb à Rufisque deux morts moo fa am ak quinze policiers blessés ñun lamb joo xam ne dix-huit mille personnes ñoo fa nekkoon benn nit rek moo fa gaañu mais le lendemain presse bi yëpp làmb rek lay wax. kon nag nañu wax nag diggante 1994 ak léegi li fi làmb def la lutte est un milieu d'insertion et de réinsertion am na ñoo xam ni seeni mbokk bàyyi woon nañ leen ñu am benn école bu nekk par exemple way ci gox bi euh, pâtissier la jiite ko jël xale bi defar ko ba mu nekk un citoyen d'honneur nekk xaritu maire nekk xaritu député yi nekk xaritu ministre nekk xaritu ñu fi nekk kon làmb nañu wax massification des Sénégalais de l'extérieur ñu xoolan tey jii ñaata mbër ñoo bëri ba pare dem à l'extérieur te dañuy contribuer ci seen développement wu réew kon xam nañu làmb liggéey na fi lu bëree bëri massification de de des des des des euh, opérateurs économiques tey jii am na ñoo xam ni c'était des tôliers am ñoo xam ni ay ferrailleurs lañu am ñoo xam ne ay jaaykatu lu lañu tey ay opérateurs économiques lañu am seen société am seen i site internet di liggéeyloo ay nit kon ci yooyu la ñu war a wax làmb mais waruñu ñëw toujours rek lu ñu wax rek ñu ne violence violence violence ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax nag journée bi yàlla na bokk ci journée yi gën a réussir parce que réussite journée bi mooy réussite mbër yi mooy réussite manager yi mooy réussite CNG jërë ngeen jëf. jërëjëf macha allah kontaan nañ ci moom bu baax a baax mbokk yi cameraman ne arrière leen tuuti ñu leen ci bi walaa may joxaat yeneen gars yi. jege si leen ma nii. moo. salaamaaleykum. bon maa lay nuyu. maa ngi lay nuyu yow yaay kan. maa ngi am seen. Sora ci loo ne. waaw ma sant dañuy nuyu waa mouvement doole làmb leen wax ni def nañ système bu baax di leen si ñaanal waaw di leen si ñaanal yàlla nañ si réussir jàmm si barke Seydina Mohamed. xamal na ngeen yéen ñaar. kii non musul bëree xaw ma ko. musoo bëree yow. waaw dëgg la maa ngi nuyu doole làmb ñun ñëpp musuma bëre nag te ne moom musuma bëre deux combats mu jàpp ne ma naxa naxa laa man du ma naxa naxa làmb la maa yàgg seetaan làmb barke Seydina Mohamed Modou Mbaye ma ñee oma seen fay sama booy yëpp maa leen ziyaara waa guy stade bi suñu stade la non violence ñu dem si jàmm ñëwaat si jàmm di ko ñaanal jàmm waaw moom maa ngi nuyu Dugar ak Njago Doole di leen ñaanal yàlla na yàlla defal ndam si bak Seydina Mohamed waaw kii lu may wax moom bëriwul làmb du wax du làmb jëf la nga neexoo fecc nga saful xorom fecc lu nekk kontaan la dugg bu may ñëw taxaw mi fecc bi naqadee noonu laa koy daanee jël bu rafet incha allah. Modou Mbaye juddu jooy magre dama picc mu yolo mu rëcc ma jàppaat picc mu dëgër mu dee ma jàppaat picc daj kaaf te kaaf moom laa koy dugal si neexe yàlla suñu borom moom koroboro la ay jàpp picc eh, koroboro nga lekkatu fufu nga doo def dërëm déggoo ma la deretu Haalpulaar mooy daw sama yaram daw ma yoola boobu Barke Serigne Touba Mbacké su ma la jàppee naa la dugal naa aja ñu leen dem leen yow bàyyi focal yi Saint-Louis. xam nga kii. non kii xaw ma ah, kii fecc na de sëñ bi kii li mu fecc neex na de. non fecc moom bu si siy si nit quoi. ah booy ah, am na fi mbër yu garaaw booy na nga def. sant yàlla bu baax kaay li kaay li xoolal caméra. sant yàlla bu baax. ginnaaw gu ma sant yàlla di julli si Yeesu Krista. Ah? di nuyu ñu fi teew ñëpp ñëp ñëp ñëpp. di nuyu sama booy moo àndal. di nuyu di nuyu borom daara bi ma àndal fii di leen xamal ne nag di nuyu Ndiaga Dollé Ndiaga Dollé sama grand ñoom dugaar képp kuy yeewoo géej waa ñoom toxoro gars yi fi ne yëpp maa leen di nuyu di leen xamal ni maanaam neneen booy kii xamal leen ko ne am na bis dafa war a xam ne am na bis bu ma xamoon du ma jël parce xam naa bu baax lu ko wax loolu waaw grand moo ñu ngi lay bëggee di la siyaare maa ngi nuyu sama ñaari waajur bu baax a baax a baax di nuyu waa Saint-Louis yëpp maa ngi nuyu waa Saint-Louis ma kenn di nuyu suñu père yi ñu tëggal làmb ji di leen wax seen bés bi yàlla ngeen si génn ak jàmm ak salaam. ànd dooleel làmb. ànd dooleel làmb di nuyu sama grand frère Sibor mu ngi si kaw. ay wuyul kii nee na boo ko xamoon doo ko jël. waaw moom day wax rek. barke Serigne Touba Mbacke. sama premier combat ku ëpp kii aw maa moom ay seconde barke Serigne Saliou. kon kii doo billaahi wallaahi taalaahi Serigne Saliou du ma si wax lu ma xamante ni nii nekkul dëgg. mais bul waat waxal rek suñu borom ci kàttanu suñu borom. kii su jour ba billaahi du amee une minute Modou Mbaye xoolal. ñu jox ma sa reliquat. jëlal lépp. Pertune yaa ko dégg nag Pertune reliquat booy bi bàyyi ko xel. waa kii lu mu dëkkee daa neex rek. kii lu mu dëkkee daa neex di wax. xam nee naa ko boo ma xamoon doo ma jël. ay une minute deux minutes yow yow la arrangé. loo def bëgg naa. fii loo fi fekk lu ko raw ngi fi toog di la xaar. yow njaago nga. njaago pur et dur. <laughs> Modou doomu Jobal laa waa Corniche Dalma waa Oni Darma waa Déggo waa Jobal gaa yëpp Darma Modou man fi ma dëkk tapet dëkku fa. xeexu njaago dina jeex. kii kii xamagul sax lu koy dal. xeexu njaago dina jeex. waaye bon du jeex ak yooyu yëpp moo man daal moo li ma intéressé mooy maa ngi waa Ndar gi na ñëpp ñëw waa Ndar suñuy ñëw yaa ngi leen di yaatu si yoonu jàmm. waa ndar suñuy ñëw di nuyu boo gëndat bu baax xam nga waa ndar suñuy ñëw yàlla na teg si yoonu jàmm kii barki alxuraanu karim billaahi wallaahi taala moo dama bëgg gars yi bàyyi ma xel loolu laa bëgg yow bi mooy sa ñaata combat deuxième combat yow bi mooy sa man bi mooy sama deuxième combat deux deux damaa ñàkk benn bi dangaa ñàkk benn bi yow am victoire dem ndar feetoo ko waa ndar gi ñëpp génn Mansour Faye sax dafa génn so toog mais di ngeen xeex damay xeex damay bëree lu ma indi ma defa ko lu ma indi dama koy duma ba mu tëral boppam munul xeex sax xamuma waaw waaw loo indi ma duma waaw waaw dem leen ñu kontaan ci yow Mass Boga sam papa maa ngi lay nuyu <laughs> mbokk yi dañuy dem ci combat bi stop naar moo koy bëree ak Ngor Diouf naa naar sérieux nga de. waaw la nga ginnaaw naar sérieux nga de. naar sérieux la de. kii dafa sérieux laa wax. bu fekkee bii mooy sama deuxième combat. dama njëkk a bëre daan. waaw. ma jox ma cinq booy ñu daan. moom mii nag moo ko jël maa koy ñaanal nag ba bis baa nag mu dëgal boppam kii bu dëgalee boppam ma duma ko barki Seydina ma duma billaay wallaay wa taala boo xeexee ma duma la nga bëre ma daan la fi kàttanu yàlla ah wallaahi Mourou wax ji xoola mu muy gaaw eh, yéen ñaar da ngeen xamante xamante wuñu maa ngi ñaanal nag suñu tëddee fil ñaari yaar yàlla na ko yàlla may ndam si kaw njaga doole waaw ma ma di sant nag waa parcelle un ba vingt six waaw man di sant daal waa Tivaouane Peulh yi sant sama gars yi nee na la lay dóor. kii mënumaa duma. wallaahi mënumaa duma. la wax. boxeur laa dama lay duma sant nag samay entraîneur Neka mu ngi ne taw dafa sonn si ñun ak Dame Kandji Modou Mbaye déggoo li ma la wax. kii bu bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko billaahi loolu maa la ko wax. mais lu tax feccoo. non maanaam man laa ma laay feet tey dama koy bàyyi ak moom mu feetu mais suba man maay feetu dimanche incha allah. day wax li neex day wax li ko neex kii xamul avance bu mu jël wallaahi. ah wutul ma wax xamoo avance boo jël. waaw waaw mbokk yi ñu dem ci combat bi GAM moom ak wala torodo toxoro we te rekigis bajang rekigis rekit bajang jarona kigin cece cece tasbax ki jëriñ we kin bajang ki jëriñ naa def. maa yow tamit sérieux nga de baax woo. lu tax. yàlla <laughs> da ngaa mer. non meru ma sax. ndax maa ne lu mu def lépp noo ko defee fii. le neuf man maa aye man maa ko moom. yow yaay kan. ngi seen gis nga toxoro. déggoo fekk nga ma Thiès. waaw ah. daan ko ëpp tey nga yow bu ngeen ñibbi nga dugal top 5. ah. man du ma mbër bërekat laa. bërekat nga <laughs> fekk nga fi sa moroomu bërekat jour le neuf dinaa ko dóor dinaa ko duma dinaa ko daan. Modou Mbaye mën a waaxu xam fa nga jëm ko gën. xam yoon wi. mën a waaxu. Ah. xam fa nga jëm ko gën. bokk si coow li xam li waral coow ko gën. man damaa mën a bëri lu ma mbër bërekat laa soo ma gisee dara mbër ne mais su ma summee ko su ma bëree nga xam ne kii ndaanaan la man damaa toj àll bi Thiès dama faa bëre ba doyal. te da ngaa bëgg a moom. kii maa ko daaku bëri kii làmb waxtaanee ko. kii làmb waxtaanu kii doon ko saree ko waxtaan mais làmb waxtaanee ko man làmb daf maa waxtaanee géejewaay. waaw loolu baax na moom lu mu wax ni lépp man loolu concerné wu ma le neuf laa koy su ñëwee su yaroo ma daan ko su yaroo di ko ma daan ko jël bu rëy. Modou Mbaye nee na nga calme de nee na nga calme. Modou Mbaye man dama mën bés. dama mën a bëre damaa nangoo entraîné dama di xale. kii aw ma lu may bàyyi xel si moom kii su arbitre du yàgg prip dib laa koy def. kon day gaaw maa ko dàq bëre maa ko dàq li may teg sama yaram du ko teg yaramam kii li may entraîné attanul loolu kii nii kii du entraîné kii day dawal sere ba fajar dem tëdd. man loolu laa bëgg lu may wax nii laa bëgg mu jëfe ko lu may wax nii laa bëgg mu jëfe ko waaw. yaa ngi ñàngal de. non ñàkkul ma damaa kontaan rek. Ah. Mourou Mbaye Mourou Mbaye fekk nga ma Thiès ma kay drapeau drapeau kii député boobu noonu fekk nga ma Thiès dama dama ko daan dama ko yoroon ba taxaw dóor ko suuf moo sut kii moo ko bi ko jël nga dugal topp seeg. léegi da nga ko bëgg a yàlla. dégg nga wax ah, dëgg lu mu bëgg wàllu maa de wàllu bëre bëre kaamil laa foo ma toll moo bi fooy liir. ah. kii da ko ëpp doole. dàq koo bëre. mbokk yi rendez boobu la neuf lay doon. jaajëf atu 1 moom ak Indi Serpent waaw waaw Ibrahima Anta Seck maa ngi lay siyaare combat bi du yomb de Atou. du yomb Maasalaay Njaay ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur naan jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba rë jërëjëfe di Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul il siyaar naa la waaw ñu dégloo ñu dégloo ñu siyaar naa la baax di jox waay di la sant bu wér di sant mbokk mbëri Alioune Balde ñaar aar sa waay non xaw ma koo ñoo ko bëgg a siiwal ne kii ba xamul kii man maa indi serpent nu ma jàpp ñëpp yóbbu naa leen yóbbu sangale barke Serigne Touba yëngalu xew après nga comprendre. ne ko bii moo koy barke Serigne Touba yow doo bëree doo xeex te jour làmb ja boo tax bee dinaa la dóor ba nga daw génn. daw soxla moo bëri dama la bëgg a dóor nga daw génn la. yow sa loxo yi maam li maam laay boo si ñaan sa loxo doo dóor doo doo dóor li nga xam comme du mën a mu neew bu garaaw laa leen atu réer la atu réer la atu day bu sa réer bu sa feeñ ah bu sa feeñ kon dina feeñ si suuru lamb jooju si sama borom déggoo lu ma lax boo xeexee ma dóor la ba nga daw la génn lamb gi soxla ma sax bëri ndax man géejawaay ñëpp tàppal nañ ma da ngaa mën a bëree moo tax du ma bëri damay xeex Modou Mbaye géejawaay ma dugg naa fi duggaat fi jàpp naa fi ay champion daan géejawaay Alioune Seye moomu tëggal Mbappali ko ponkal mu fi gën daan naa yaa si toog dinaa la daan ba tëdd sa kaw. man munoo toog sama kaw toog sama kaw tuuti nga si sawaay déggoo lu ma la jour làmb gi dëggalal sa bopp ma tuur la si kàttanu borom ba nga génn nee naa la sax ñoo ko bëree damay xeex ak yéen ma lay tuur ba nga daw. kii loxo yi wax naa la loxo yi maam li maam laay boo si ñaan yow doo xeex yow doo xeex man ñee la ñoo yónni yàqal ma taxawaayu barki sëñ la ngay nelaw yeewoo ko moom le 9 janvier ñoom ñaar dinañ ko yëngal am Ndour ak X9 xaara xaara bu leen tudd xaara e eh booy dem leen toog xoola xoola

<laughs> waaye maa bëgg mbër waay champion yaa ngi ni taxaw mbokk yi am lu rek X9 X9 bu gaaw bi mi gaaw ba léegi bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñu nekk ci salle bi yëpp di nuyu sama papa yi sama entraîneur sama grand frère yi ah Modou Mbaye maa lay bëggee bu baax a baax di bëggee ñu ma àndal ñëpp usteur bi gaaw ba non léegi dama koy yokk deux cent cinquante la cent vingt cinq la woon léegi deux cent cinquante la quoi. da eh, ngaa calme de yow tamit da nga calme serein quoi. mbay gi Mbaye kii arme Ndour la njaajaar bi xale ci ko naanaa bi Fara Mbacke. eh eh eh, eh, eh booy yéen ñaar jeex na ah. man la xale bi juddoo ci Dakar yaroo ci Bissau màggee ci Limon kenn du laajte ndax forom la tool laa def. waxal ci kaw. man la arme Ndour njaajaar bi xale ci ko naanaa bi Fara xale bi juddoo ci Dakar yaroo ci bisaab màggee ci limon kenn du laajte ndax forme nag toll laa man la ah? xale man la xale daa <laughs> kii day wax rek moom ay juddoo si Dakar ay bisaab. ay yooyu yooyu mooy wax signature la rek. dañuy wax ci làmb ji quoi. yow noo nar kii. waaw Modou Mbaye xam nga man kii ni maa moom du làmb xam nga sama garaay ñoo jël làmb ñu ne ma fekk maa ba sax ñu woo ma ne ma arme loolu man xaw ma koy arme loolu man bëri laa am dañ may woo ne ma làmb am na rek man la naaj soo leen ma jox man naaj damay bëre quoi. Arme Saay nee na moom amul problème adversaire de dañ ni ko yow la rek mu ne bon sebon no man xam na ne sa waay dama xeeb mais waa làmb ji lañ may joxe bopp ci combat bi ma rey X9. ah billaahi wallaahi taalaay dangay xeex dangay ngay bëree lamba làmb ji lu mu laaj ma def ko bu laajee sama indi arme luur bi dama koy indi non non tax mu dee non eh alkaati yi dañ koy tere de ah kon acca boobu baal ma kon ñëw arme bi <laughs> Modou Mbaye du ma xeeb mbër a ndaw moom laa gën a respecté ku gën a mag man ku am dama koy jël jox ko cër jox li mu moom jour ba xam nga daa am ñu nga xam ne dañoo nekk sama ginnaaw kon duma ma caaxaane làmb quoi daa am fu ma war a dem man xeebu ma ko làmb la dama koy jàpp dama koy duma dama koy daan le neuf incha allah. kii musul duma mbër ci làmb seetaan na combat yi bëri yëpp musul bëre du tax. mais ndax xam nga ni ndaanaan la. xam naa X9 mais bu bëreeg arobase njongoon njongoon séeréer bëreeg Toubacouta Mbambugaar kon kii jaaxalu ko lu leer laa lay barki am. ah kii day wax rek am maa ko gën a miin àll bi fop ki bëre ñoom Ibou Senghor ñoom Ngaan ñoom Toubacouta. di dugg si àll bi di jël ay nag man dama koo lijjanti. noonu ñu wax si le bii nga pare nga indi say supporter ñu indi suñu supporter neexal làmb ji ma jàpp la daan la daari ñu bi ko wax day neex billaahi wallaahi day neex arme luur bu bëree mu naqari yow sama bakkan bi laa la jaay le neuf soo ma mënee rey rey ma soo ma namee daan yàlla bu ma ñibbee bakkan billaahi wallaahi ah? làmb ji def ma jaral dama toog ci ay defet ci ay defet laa tegle mu toj làmb nag nekk champion bu mag ma seetaan ko Adrien Senghor mu daan ngóor ñaax ma xam ne kii ndaanaan la boo bëggee doon buur da ngay rey buur doon buur. <laughs> Modou Mbaye waa Tivaouane Peulh laa yërëm le neuf ndax defet bi nar a am quoi mais maa leen koy jégalu quoi. non ndax le man maa moome ndam li allah bu neexee yàlla quoi. le 9 janvier doon ci eh, Amadou Bari yow tëggal ngay xool nii. mbokk yi balaa ñuy dem ci beneen signature ñu woo suñu père père Djili dafa war a jël kàddu ci bis bi président ana père Djili non non yow père Djili na am problème mi ñëwaat mbokk yi bi dañ ko tuddee ki nga xamante ni mooy la monsieur le maire Alioune Sall waaye balaa ñuy ñëw ci délégation bi dañuy jox kenn ci ñi nga xamante ne ni ay jëwel la yu mag di wax lu baax di def lu baax muy Mansour Mbaye ak Jéeri Ngoone mii sama mag yi Jéeri Ngoone ma bëgg nga ñëw nii nee na Fatoumata Tall dañ koy sargal ci bis bi jëwriñ diñ jënk ndaw ñi waaye tamit borom Lonase desul ginnaaw ci bis bi muy Lat Diop mu mel ni àndu dooleel Géejawaay daa jël lépp loo xamante ne trophée la yemale ko biir Géejawaay jox ko ñi nga xamante ne ñoom la Géejawaay yaakaar jëri ngoone mi ci ndaat bisimilah. ma faaliku mën naa ma toog ma aliku ma njëgo maay dinaa ci sawar wax du nuyu bu baax baax Sénégal waaye di nuyu bu baax a baax géejawaay nga woo ma nag ci bisu bi nga xam ne moom la ñu duppee le maire des maires Aliou Sall le vainqueur de géejawaay di ndaanaan ci géejawaay di ki nga xam ni njëkkewul lu baax tey Aliou Sall nekk kenn ci ñun di xarit communicateur traditionnel yi moom rek moo fekk communicateur traditionnel ni kaay leen ñu ànd liggéey kon kooku Modou boo ma coowee dinaa ci sawar leen rek laay wax sama njaboot gi mooy zéro violence loolu la Aliou bëgg nanu ànd ci jàmm dem ci jàmm ñibbis ci jàmm zéro faute Modou maa ngi leen nuyu bu baax a baax jëri ngoone borom daal merci encore une fois jërëjëf di nuyu bu baax a baax président la Diop di nuyu bu baax ajot na taal waaye bu baax président des communicateurs traditionnels di wax ne Modou yàlla na jàmm yàgg ci Sénégal jërëjëf kontaan nañu ci moom bu baax a baax a baax jëri mi ci ndaat suma mag la suma xarit la maa Mansour Mbaye nuyu naa la waat encore une fois maa ngi lay bégee. kontaan ci yow dañuy dem ci beneen combat bi. Langsana numéro 2 moom ak Rouge Blanc ñooy bëree. xanaa xamoo mbër dina mos a tuus tuus contre temps taxaw sama kanam ma dóor ko ko du ma si bañ dara. Ah? ah nañu nañuy xool heure bi waawaaw waaw waaw waaw <laughs> maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Modou. yaay kan. man saa la nuyu maa ngi nuyu képp ku fi teew di nuyu association des entraîneurs active rafet na maa leen ñaana yàlla nañu mën di tëggaat yeneen i combat yu mel di nuyu waa Guédiawaye nuyu waa Thiaroye waa Yëmbal di nuyu sama gars yi ma àndal. Ibou Joola Xaadim Gueye Arsenal. mais lang waaw saa ñëwul de. mais saa ñëw est-ce que nekkul daa bidanti. waaw waaw boo demee daa bidanti de. daa bidanti xawoo ko xawoo ko. non xawuma ko xawuma ko sax man yàlla xam na ne xawuma ko sax. Ah. dafa bidanti rek ne naa koy ñaanal jàmm. ba le neuf mu ñëw ma tànk si kattan suñu borom loolaa koy ñaanal comme que nekku fi amul lu may wax. maa ngi woo sama supporters yëpp di nuy samay entraîneur samay entraîneur maa ngi leen di ñaanal jàmm su ma nee Jegaan Grand Iba Alaaji booy caam ko da xaye ñëpp maa leen ñaan a jàmm maa leen ñaan Cheikh Thiam ñëpp maa leen ñaan a waaw di ñaan yàlla na yàlla may ndam si kawam comme que ñëwul amul may wax ak moom maa ngi nuyu nag sama papa yi fi toog yëpp maa leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm gudd fan ak wér jërë ngeen jëf jërëjëf mbokk yi dañuy woo le président de ànd dooleel làmb mu ñëw taxaw fii jël kaddu ci turu ànd dooleel làmb Thierno Balma président indaale na ay fooy de <laughs> président a nii bisimilah. voilà Modou Mbaye gannaaw bi ma sant yàlla maa ngi julli si yéen salaam di gërëm samay ñaari waajur di waaw. di gërëm samay ñaari waajur ah. si biir loolu balaa ñuy démarrer dama bëggoon tuuti ñu def un peu de remerciement par rapport ak ñi nga xam ne boobu léegi ñoo jëmmal ba bi tey ba ñu yegg si fii si biir loolu maa ngi siy jiital le mouvement And Dooleel Lamb si organisation bi du début à la fin di jël nuyoo boobu vraiment di ko teg si loxo père Djili ak euh, père euh, père Koli ñu jàllale mu nuyoo boobu si gaa yëpp beneen bis topp mooy ñu ngi remercier vraiment le président du CNG. ak euh, le secrétaire Bira Diop euh, Ndiambe jóg ak euh, Maguette Sow ñoom ñëpp vraiment yombalal nañu liggéey bi daal si biir loolu ñu ngi nuyu la délégation du maire di jël nuyoo bi di ko teg suñu grand Mor Seck mu lu ñu ko nuyu ñu monsieur le maire bu baax a baax ak délégation bi mu àndal nii yëpp ñu ngi leen di nuyu. beneen bi moom mooy ñu ngi nuyu le commandant Thioune di ko jox wàccuwaayam. mu nekk vraiment un régulateur social. xoolal si nekk un régulateur social vraiment. bi ko xamee ba léegi lu si bëri def ñu ko yombalal. Mmh. beneen bi moom mooy ki euh, représenté les ménagers ici mooy père Bourkhane Wade ñu koy santi di ko gërëm ak euh, Ndiaga Diagne mu ñëw léegi léegi. ñu ko sant di ko gërëm père Bourkhane. vraiment mu nekk waaw Pape Diagne Seras. di remercier vraiment père Bourkhane mu nekk koo xam ne bi ko xamee ba léegi chaque jour bi ko jegee xam-xam rek la ñuy rootee si moom. beneen bi moom mooy di la sant di la gërëm yow. mun naa sax bañ la sant parce que yow si biir mouvement bi nga bokk. parce que projet bi biñ la ko présenté da nga apprécier na man mooru Mbaye dama bokk si biir mouvement ànd dooleel lamb kon yow tey suñu frère nga suñu waay nga suñu wëllëre nga yow géej waay nga dëkk. ndax Sénégal ñëpp la bokk waaye tamit géej waay am na cër. waaw mm. beneen bi mooy si biir loolu dañuy ñëw. di wax lan moo indi projet bi jotaay bi tey lan moo ko indi ma bëgg ñu may ma nopp tuuti rek ndax dafa am jëmm joo xam ne tey da doon bëre démb yàlla def mu ñàkk combat bi muy Balla Gaye 2 ma bëggoon ñu may ko loxo tuuti mu nekk un grand champion ñu koy encouragé ñu koy encouragé mu nekk doomu Géejawaay mu nekk quelqu'un à remercier Balla Gaye le mouvement ànd doole làmb nee na tu n'as pas ndax tey fii ñu àgg nii tey gannaaw yàlla yow yaa tax ñu jot ci monsieur le maire kon Balla Gaye tey bu ñu fédérer toutes les écuries de lutte yow da nga nekk symbole si biir géejawaay amul ndam boo indilul géejawaay kon tey géejawaay moo la desel mais yow too dara géejawaay ñu ngi lay invité suñu bés bi muy dimanche bii di ñëw te dañoo jël initiative sargal bala Gaye 2 ngir lépp lu mu def géejawaay moo waral démb ñu takk ñun ñëpp dem dooleel ko biir stade yàlla nag la mu namm namm ko bu yàgg mais yàlla na ko jig beneen bi mooy du ñu des ci moom kese mais dañuy boole Aziz Ndiaye parce que ñaari personnage yoo xam ne dañoo def lu bëri géejawaay tey dañoo yëkkati turu géejawaay def lu bëri ci biir làmb kon tey ñun bu ñekk yegsee fii yoon la ñu sargal leen ñoom ñaar te Aziz incha allah moom it danañ ko sargal mu ñëw mu ñàkk ñëw danañ ko sargal te ñu ngi koy woo tamit mu jàpp si si sponsoring bi mu jàpp mu ñàkk jàpp danañ def suñ devoir suñ suñ diggante ak moom ndax loolu jiitu na avant sax ñu bind demande de sponsoring bi si biir loolu te jotaay bi Balla Gaye bi ñu boolee ak monsieur le maire Alioune Sarr boole nañ ci formation en informatique en infographie et multimédia beneen bi mooy def nañ ci formation étude formation aux réparateurs, réparation de portables, formation au métier d'horticulture et de maraîchage, formation au métier d'élevage, formation au métier de sérigraphie. loolu yëpp lañ tëgg boole ko def ci document bi jébbal ko monsieur le maire na ko lu ñu bëgg mooy mu dimbali ndawu géejawaay les lutteurs de géejawaay pour lutteur bi si nekk nga am métier am si loo jafandu koo xam ne am na métier tamit ñu xool nan lañ koy orienté ba mu am projet ñu financé ko. monsieur le maire je suis le premier partant parce que je suis le magistrat de la di département de Guédiawaye lii ngeen def nii man ngeen ko defal wala ma ko defalee man ni dama war a ñëw accompagner leen ñu ne ko nag ñun pour solidifier c'est-à-dire pour dëgëral fexe ba mouvement bi mu nekk un groupe homogène monsieur le maire dañu bëgg nga accompagner ñu parce que am nañ trois journées pour tëgg lamb monsieur le maire ne lépp lu si war man naa ko def te di début à la fin lépp lu si monsieur le maire def na ko ba jotaay bii ma lay wax ni li nga xam ne war na suñu digganteeg moom monsieur le maire tànqam lu wuñu benn yoon heure bu ne fëgg nañ ko buntam dem mairie mu recevoir ñu des fois sax duñu am audience mu recevoir tey jëm bés yi bu taxawee c'est grâce au maire monsieur Alioune Sall ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax beneen bi mooy bi ñuy waxtaan ak moom si projet bi balaa ñu faa jógee def nañu ne monsieur Lat Diop le DG de la LONASE c'est mon jeune frère tey il a beaucoup fait pour le sport au niveau de Guédiawaye parce que c'est le président du GFC mun a dem leen ngeen gis bëgg naa moom it bés bu mel ni bu may génn ma ànd ak moom donte gis la xaw na jafe waaye boobu léegi ñu ngi xar suñu tànk wéy def le tout pour mu recevoir ni bëgg nañ tam mu recevoir ndaxte lépp lu muy def Guédiawaye tamit ci sport bëgg nañ ci tamit ànd dooleel lamb xam ne dafa fédérer toutes les écuries de lutte moom monsieur la Diop mu dugal ci loxo mu jàpp si ba ndaw géej waaye gën ko ràññee si fànn boobu. si biir loolu tamit bi ñu fi jógee dam nañ rencontré le ministre Amadou Wat vraiment mu nekk quelqu'un qui est sympa parce que bi ñëwee tamit amul benn barrière suñu diggante moom wax dëgg yàlla moom mu nekk koo xam ne dafa na projet bi pare na pour jàpp si parce que lépp li nga xam ne ne projet la pour ndawu banlieue moom tamit bëggal la ko askanam ñu jógee foofu dem seeti tamit ki ñuy wax Modou Gueye biñ demee foofu Euh, président du mouvement convergence citoyenne biñ demee tam wax dëgg fa yàlla tamit yomb na si côté ba moom it tuddee nañ ñeent drapeau ñoom ñëpp te nee danañ ñëw danañ jàpp si bés bi. kon loolu la ñu amoon pour wax leen yéen ñëpp di leen woo sur le pour yéen ñëpp ngeen ñëw teew mais tamit ñuy woote à la non violence di leen woo yéen ñëpp la jenesse de Guédiawaye i compris la jeunesse des autres banlieues parce que projet bi bu ñu ko tëggee pour mbëru Guédiawaye yeneen mbër yi nga xam ne ñu ngi si yeneen département yëpp ñu ngi leen si woo parce que tamit képp kuñ si tëggal nga am bés bu rafet woote noo violence yeneen journée yi des yëpp danañ la woo danañ la tëggal je crois que loolu vraiment c'est quelque chose à mériter di leen jaajëfal yéen ñëpp kontaan ci yow jërëjëf monsieur Dubay sama doom sama xarit di la ci njëkk mooy sa yar d'abord sa yar ak sa bëgg bopp bokk nga ci ci li nga jàngale ci yar ak teggi nga doon référence Sénégal yàlla boo am ndox ci li nga def moo damay sawara jël ay kàddu ci turu le ba histoire la bi dégg nga xam ni moom la ñu jagleel bis bi nga xamee ni association ànd dooleel làmb fii ci Guédiawaye bi ñu ko seesee tegal ko projet daf koo rafetlu dans un premier temps ba pare nag ni dinaa taxaw tem accompagner leen lii ngeen di def mu nekk nag projet boo xam ni xam moom déjà yàlla daf koo dimbali mu am lool rawatina ci cadre sport parce que kenn mënul émerger Guédiawaye sans pour autant passer par la lutte d'abord Modou la lutte doit être celle de la communauté mm. dans communauté par la communauté et pour la communauté loolu la Aliou Sall xam ba biñ ko tegalee projet bi mu ngi taxaw nag pour accompagner leen mu nekk projet boo xam ni dafa am solo d'abord seen président wax na ko ku ne xam na a tax doo am métier te ku deful formation mënoo am métier. les réseaux de la formation et de permettre aux lutteurs d'avoir un métier de qualité. et de leur inculquer des capacités managériales pour gérer au futur leur propre entreprise. macha allah loolu dafa am solo kon di defar formation spéciale euh, ñi nga xam ne ñooy association ànd dooleel lutte bu Guédiawaye di leen defar di leen ñaanal yàlla bis bi danañ ci dugg ci bisimilah rahmaani rahim àggale ko ak alhamdulilah defu leen ko jaajëf Boy Pire Alliance Baldé maa ngi lay nuyu ñoo ngi lay fay Modou Mbaye maanaam auzu billahi mina sheytaani rajim rahim xam nga nuyu ñu teew ci jotaay bi yëpp xam waa ànd dooleel làmb Géejawaay xam nga li def ñu dafa rafet trop ñu ngi leen ji sant bu baax a baax bu leen neexoon ñu def ko ci leneen kon buñ ko dugalee ci làmb ngir jàppale ñu ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax a baax Modou Mbaye waa di wax ni waa yëmbal aw ma seen fay gis nga leen waaw waaw li yombul quoi ñoom li nga leen tey du làmb ji tey du làmb waaw làmb ji damay ah waaw Modou Mbaye làmb ji maa war a jekkal maa war a taaral làmb ji man bis bi ah du grand combat du avant grand combat du kenn man maay taaral làmb ji alliance sawar nga de balaa dara lu may ñaan dama bëgg def dama bëgg ñëpp jug ñu def une minute de silence ñu may ko Moussa Balla Gaye ñu ñaanal ko. oh s'il vous plaît. jug taxaw. eh boy see taxaw leen eh taxaw leen taxaw leen. dañuy ñaanal suñu benn mbokk bu génn àdduna bu tudd Moussa Balla Gaye nekkoon ci écurie dóor dóoraat nekkoon xale bu làmb amoon ci moom yaakaar. di ñaanal Gaynako nekkoon ci Boy Bambara nekkoon ay champion ñu def fatiya rek ak xulwa papa ñaan leen bismillah gars yi ñu tàllal loxo yi ñu ñaan mersi ci rappel bi mersi ci fàttali bi am na solo ñooñ ci ñun lañu bokkoon dëgg la te xel day fàttu. waaw waaw amaana ba ñu ba ñu ko defee si xel balaa ñuy ñëw. beneen bi mooy dañuy wax euh, ku dëkk si dëkk bi wax nañ ku dëkk ci ku def dëkk ci dëkk bi di defar dëkk bi la wax. ñu ngi nuyu Alioune Sall monsieur le maire di ko ñaanal suñu borom jox ko di ñaanal beneen frère boo xam ne ku baax la muy Amadou Hott di ko ñaanal mu nekk première ministre lu may ñaan maa ngi koy ñaan au fond di cœur. yàlla na ko suñu borom def première minute. Ah. di ko wax mu jàppale xale parce que ci làmb lañ bokk. di ñaanal association bi geste bi rafet na di nuyu suma père Paday suma papa Burxaan ak ñu ma fekk ñëpp di ñaanal Île des Serpents ñaari yaar yàlla may leen dam xamante ngeen na xamante ngeen yéen ñaar. def na ay sorties xam naa ko bu baax a baax a baax a baax xam na. da nga koo xeeb mbaam. xeebu ma ko mais dama Elias Balde. di nga xam ni yow Elian avance booy Pire sa yoon nekk ju sot moo la ci dugal mais maag yow du làmb barki Seexu Modou Mbaye man dong ma am ci làmb ji cinq kaw cinq dóor mu daanu ikiréem ñaar laa dóor ñu daanu <laughs> moo tax ma ne la man dong xam nga combat bi kañ la taxaw semaine avant combat bi kuñ ko joxoon mu delloo avance bi Matar Ndiaye woo ma mu ne ko indil ma lekk ko barki Serigne Salim looloo la may chance pour nga bëre man mais maag yow du làmb maag yow du làmb Modou maa ko fay te ba muy bëre 2017 ak Fesmes parce que Serigne Sallou yàlla bu ma daan maa ngi bëri maa ngi jàng métier. parce que Serigne ba muy bëre 17 lu may wax bu amul yàlla na ma daan maa ngi jàng métier muy bëre stade Ndiarème Ami Ba moo ko tëggoon. lu leer nga wax mais yaa ma njëkk a dugg ci arène bi. ba muy bëre Fesmes na laa tolloon. boobu Mbapat lay bëre man dugguma arène. ba muy bëre Fesmes nan laa tolloon 14 combats am si 10 victoire du may moromam ñaara victoire am laaj ko. man 10 combats kon kay xam nga ne moom morom 5 kaw laa am. maa door luus mu daanu maa door sa bébé sa kajoor mu daanu maa door dund mu daanu maa door sa Cees mu daanu maa door waa waaye tàcc loolu alliance Baldé waaye. alliance Baldé li muy wax amul suñu écurie deux combats nga fa def dund nga fa bëreel ak Mathia benn victoire nga fa am benn défaite. ku daan Sa Cees fu mu nekkul suñu écurie. waaw mais waalo mooy écurie Balla Gaye. waaw man sama écurie waalo laa gëm. man yëmbal laa dëkk. li ma la wax mooy li ma la mën a mooy man yëmbal laa dëkk. su tëgalee boppam si combat barki sëñ Bamba du ma la tegalee paa yàlla ma yàlla rey. parce que boo xeexee dama lay duma boo bëree dama lay daan maa doole maa la barki alxuraanu karim. bu la neexee am nga si droit maa la mën bu at mi soufflé ñaanu ma ko damay. waaw looy ñax yow amoo joomu xeex. am doole ñaxul liggéey. man xale laa. paa laa paa ba muy bëreeg fes na si wallaay maa ngi jàng métier man 1960 laa judd. <laughs> maanaam téeméeri junni yoon. <laughs> mais dama lay daan. waaw yàlla bëri na sutura. mais di eh, eh, di ngeen xeex. yàlla moo sañ luy dee mu gën a. si lamb ji daa a xeex. di nga xeex ak moom kii du xeex day man waalo laa nekk man waalo laa nekk. Serigne Sall damay wax Amadou Hott ñun ay doomu yëmbal lañ ñu tuddee ko drapeau mu dëkk yëmbal xam nga nañu jàppale ci billet yi gone yi génn samay supporters ay supporters am lañ ñoo koy sànnil carte. maa ngi koy woo ci bis bu baax na génn jox ñu billet gaa yi ñëw. ak waa mais ak bépp autorité bu nekk yëmbal. Serigne Xaadim borom yàlla rek ay góor jabaram soxna ay maa ngi leen siyaare di ñaanal Sénégal jàmm yàgg fi Pikine jàmm yàgg fi lamb ji yàlla am réussir di wax mbëri ñun du ñu ay noon xaara xaara xaara xaara xaara di wax mbëri ñun du ñu ay noon war nañoo demalante war nañu digalante benn dix bu jeexee war nañ mun a bokk ndey bokk baay parce que tey ku xool ci Moussa baala Gaye jugee na fi champion la woon. gay naa ko jugee na fi champion la woon suñu papa dubalees ñu ngi koy jaalee jugee na fi kon nañ seq lu rafet nañ bokk ndey bokk baay xam ne benn dix minutes bu bu jeexee jeex na. macha allah rafet na waaye et eh, yóbbu leen ñu dem waaw waaw. Eh, waaw. waaw Modou ñu ngi lay nuyu di nuyu waa géej waa yëpp. sa adversaire ñëwul am tee waxal jëlee sa temps. waa ji waa xam naa daa yaakaar ne li ma dëkkee ci stade bi moo tax waaw <laughs> Modou bi ma la nuyoo damay nuyu sama papa yi fi teew di nuyu sama mbokk bëri di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal képp ku nekk ci li nga dugg ak li nga yéene yàlla ko suñu borom yeggale may ñu ñun ñëpp ndam. mosoon ñu ci defet ak machine yi mosoon ñu ci dóor mu daanu at at tàqale ñu jaaxle ak jombi de moo dama lay benn affaire xam nga la laa bëgg dama bëgg la jóg géejawaay dëkk ñun géejawaay dëkk xam nga dañoo bëgg geste bi Alioune Sall la def si journée bi nga ñëw def ci bu raw bëgg nga jënd liggéey jox ko jox ko suñu suñ suñuy supporter te Modou sans suñuy supporter doole làmb du dox. sans ñoom seen soutien ñoom la jóg ñun suñuy supporter duñ dox la biso Modou léegi supporter da nga obligé may leen ay dige sa jamono yëpp métti xam nga du woo waa Géejawaay yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di ñaanal suñu mag suñu xarit suñu njiit suñu patrimoine Géejawaay muy Balla lépp mu jigéen démb yàlla ko ko fi yàlla yamaleel ko fi bépp mbëru Géejawaay suturaal ko ba lañ ko xame woon ak lañ daan gis si moom suñu borom doole ko sutura ba mu jotaat lépp di wax ànd ak moom doomu aaram bu nekkee si ay tolof tolof nga xam ni ku sañoon ci ay bëñ yu weex ngay dëkk waaye doo toog ba bëñ bët yu toog ñu moo di ko xarab xam ne làmb jox la fi nit bopp rocc làmmiñ waaye xëy na it delloo ko làmminam ba mun a toog wax fu mu waxul xam nga benn mooy damay woo monsieur le maire mu ñëw jàpp ci man fii laa nekk maa uuf esaat bi ñëpp. man la ñuy xaar non esaat bi man sama ay doomu da duy maa fi ëpp code part ah wallaay wal azim kon sama ASC moo gën a ndaw ci ASC mais ñoo gën a saxan si ASC yi <laughs> benn kër ay quatre-vingts personnes la dëkk xam nga di woo sama grand Mawal Moussa Ndiaye mu ñëw jàpp grand Mbemba wal azim gis naa taxaw ngeen ñu taxaw muy rafet waaye dafa raw ni combat bi dañ ci war a gën a mën a jàpp Lat Diop si gën a jàpp Lat Diop Lat Diop ñëwal nga jàpp ci journée bi jàppale ñun ay ndaw lañ monsieur Aliou Sall nag sama papa Mor Seck laa yóbbante piso ñëw bokk dama laa yóbbante yow ak say ñoñ nga waxal ma sunu papa Aliou Sall lu jàppale ñu si ay ticket te ko sa loxo nga tegal ma ko samay loxo supporter maa ngi koy xaar man ak samay supporter di ñaanal ñëpp jàpp di ñaan yàlla mayoon ndam lu seet. aja ñu dem. jaajëf. ci seen turu président Chérif Diallo di kenn ci département bi di kenn ci askan bi nga xamante ni itte bi yëpp mooy nan la géejawaay bi jëme ci kaw ci wàll sport yàlla def moom mu nekk nit koo xamante ni ak association bi ñu àndal yëpp boo xoolee li ñu def xam ni yombul bi ñu ñëwee waxtaan ak monsieur le maire Alioune Sall dañu leen man aw ma lu dul géejawaay bëgguma lu dul géejawaay te géejawaay su ma mënuma koo développé mu te ànduma ak ànd suxali làmb ànd dooleel làmb kon nag lépp loo leen ci xalaat ci loo xamante ni bis dina baax rek maa ngi ci seen wet dinaa ci jàpp waaye yamul ci loolu daf ni leen boo leen paree na dem ci sama frère monsieur le maire Lat Diop DG LONAS ngeen dem fa moom itam ndax sama rakk la te dafa contribuer ci géejawaay ku ne xam na fi mu loxoom yëpp mi ngi ci sport bu géejawaay waaye kenn mënul wax sport te doo wax jeunesse ndax le ministre des sports le ministre de la jeunesse ku ne xam na ni géejawaay la dëkk euh, madame la ministre nee na Fatoumata Tall Mbaye ku wax sport wax jeunesse moom itam mu ni nañu dem waxtaan ak moom moom itam mu dugal ci loxoom pour wan la ni rek ñun chance bi ñu am mooy autorité yu ñu am dañu faale seen population mais dañu jege seen askan mais dañu leen taxawu dañu leen dimbali monsieur le maire Alioune Sall nag li may faral di wax rek ñiy bëri ñu ci bëri écrits yu ci bari ci biir Guédiawaye lañu ne incha allahu rabi taxawaay bu mu ci war a taxaw rek dina ko taxaw ci incha allahu rabi waaye. dafay faral di wax ni mbër yi bu leen nangu amul politicien amul kenn koo xamante ni da leen di utiliser pour violence ci ñii nga xamante ni ay essayance la ñuy ndax géejawaay benn géejawaay la tey Duga di sama rak di sama doom di sama jarbaat tey mën na ñëw ñu recruter ko mu dem sécurise benn responsable wala benn leader waaye na xam ni buy dem ak luñ ko mën a jox ci àdduna na xam ne ka muy jàkkaar loolu tontoom la gram la 23 dafay jeex la 24 ñu bokk nekk géejawaay monsieur le maire Alioune Sall nee na mi ngi woo askanu géejawaay particulièrement mbër yi non violence mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni mi ngi leen di sant di woo di félicité grand Thioune Bourhan di nuyu sama frère Pape Diagne Seras nga xam maa ngi moom depuis Sénégal euh, alkali loolu yàgg na trop cinéma alkarim booba man ak Aziz Ardo ñoo nekk cinéma alkarim loolu du tey ak ne ak ne si yàlla sa ndeysaan mama yàlla na ko yàlla yërëm waaye nag Moodu dañu defal mention spéciale waaw olof yi dañu ne ku bott ku bokk ci gétti gi di nga ci mbéy mi yow ci ñun bokk yow boo amee ndam askan wi ñoo am ndam yow boo yëgee ci kaw askan wi ñoo ci kaw waaye nag dama bala ngaa xam ni ndono moo foor nga dàq jinax ba mu dugg ci yàgg bi génn doo ko sikkil benn dëkk waaye beneen rab bu fa dugg bu duggee nga seetlu koy dëgg nga xam ni ndono moo foor fi nga jàpp baax na yàlla la yàlla sax di jawax rek insha allahu rabbi Balla Gaye Balla Gaye géejawaay kenn ni ñu koy sant di ko gërëm yàlla moo pare dafa yàgg bëggal géejawaay dafa yàgg taxawu askanu géejawaay tey bu ñu demee bay tiitaroo làmb fii ci département bu géejawaay yàlla ak moom la ak la dageer ak ñoom gars yi nga xamante ni ñoo fi nekk yëpp kon Balla Gaye ñun askanu géejawaay tey jii la gën a nekk ci ginnaawam tey jii la gën a jël engagement ci wetam di ko jàppale di ko wax ni ko ñun li wóor nañu li ci kanam ci moom moo di passé yàlla ko yàlla sàmm yàlla ko yàlla defal wér allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ci yàlla tey doole la waaye ndega doole wax naa leen ko rek nee naa leen fekk naa ko fu ne fan lañ mujjee daje Fatick fatik lañ mujjee daje mu def fa am solo ci drapeau Cheikh Kanté mbapat ñu teg fa mise bu bari moo ko jël demi final ah ndaanaan la waaye kii kenn du wax naa leen kenn dootu ko présenté ci làmb ñaari yaar mu dugg si ci làmb ah pecc ma neex na bëri ba neex na ma bëgg yéen ñaar ngeen ñëw nii waaw waaw njaga doole lañ koy woowee mais changé turam ci làmb de tuddatul njaga doole léegi Jador la tudd te ku xam Jador eh booy bu ma de booy xoola bàkki sëñ Tuubaa damay booy bàyyi ma ku xam Jador xam ne loolu Jador se cent pour cent géejawaay ndax doomu géejawaay ko moom mu jël ko loolu def na li ko war kontaan nañ ci yow njaga waaye ñaar yaar ngeen ni taxaw yo ñaar moom moo yow yaa fekk si kon moom moo lay dalal dalalal sa dalal ma. ah mu dalal ma non ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent sant suñu ñaari waajur. di gërëm sëriñ Aliou Maane Ndiaye sama sëriñ di ñaanal njabootu Sane. di ñaanal suñu papa Ndiaga Sarr nag fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu juge di ko ñaanal sama papa di ko ñaanal samay goro. di ñaanal bépp kilifa goo xamante ne génn nga no rek yàlla na la suñu borom xaare àjjana Moussa baala Gaye suñu frère la ñu koy ñaanal suñu borom yàlla na ko xaaree àjjana ak gay naa ko. amiin ndax làmb ñu noonu la ko waa di remercier nag waa association bi ndax li ñu def tamit initiative bu rafet la bu ko koñ yëpp defoon kon benn mbër dootul toog naan aw ma combat wala damay toog di xarmat wala yaa quelque chose. dëgg kon nag ñoom ñu ngi leen félicité bu baax a kii nag sama wax moom du bari. xaaral mu nuyoo. kaay jege si tuuti waaye bu leen ma sori ay ñaga kaay waaw Modou ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi gërëm sama ñaari waajur di gërëm waa kër Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam di nuyu waa kër sëñ Babacar Si bu baax di nuy sëñ Sidi Alxuraan di nuy kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi xam nga di gërëm waa association bi bu baax mhm. parce que liñ def tamit rafet na trop di ñaan monsieur le maire Alioune Sall mu jàppale leen parce que euh, association la boo xam ne la lépp lu muy dox mooy pour doomu aadama yi xale yi am ci lu ñu jàpp bu ko defee agression bi jóge fii yenn detaay yu mbër dugg yu bëri mu bañ ci nekk di ñaan monsieur le maire mu jàpp ci billet yi bu baax parce que ñoom ñun ñëpp géejawaay lañ dëkk parcelle tey unité 5 géejawaay la ne kon monsieur le maire maa ngi leen di yóbbante ci moom ngeen waxoon mu jàpp lañu bu baax man personnellement damaa jël sama xaalis ma jëndal samay kii fan ci club ay biir ñoom ñu tëgg làmb ji xam nañ loolu damaa jënd sama xaalis bolo làmb dafa métti nañu jàppale. am na solo léegi yow nga ne sa adversaire. waaw mais kii xam nga rek yaa ma gën a xam xam nga tey géejewaay yi comme li ñu wax si monsieur le maire rek monsieur le maire moom ñun ku ñu xam xamuñoo moom ndax ñu ay élément am lañ ay doomam lañ ay njabootam lañ xalaatuñ ay billets monsieur le maire na may stade bi daf ko gisee fermé billet yëpp na ko jënd question ay lii laa ndax ay doomu géejewaay ñoo fi nekk. ak doomu dëkk bi kon xalaatuñu loolu si monsieur ma maire monsieur le ñu koy sas mooy na stade bi na ko def gisee ferme kon buñ ko tuddee fii ay drapeaux yi ay match nawetaan ni muy maye stade bi na maye stade bi gars yi du stade bi defar ko ba mu rafet ndax tey signature bi ñun bu ñu woote woon kon leen la ñuy wax quoi yàlla xam na ni bu ñuy jug kenn yëguñu booy yu sawar ñoo xaw a jug comme dugaar li muy wax xam moom fii la xool stade bi maa ngi koy laaj léegi mu ne ah ma non non non kër benn néeg laa génn xaw ma ñaari néeg ma ne ko stade bu fekkee Côte ngeen di jooy su la fekk baax quoi. ndax ku ne xam na ASC jamono dëgg jarul sax ñu fay wax ndax ñooñu seen yoole xajul fii beneen affaire la dañu bëgg affaire yi yegg si jàmm sax moo tax instant bi yaa ma gën a xam mooy loolu. sawaay sawaay mooy li ma la wax rek xam nga ndaanaan la de. non kenn weddiwul ndaanaan la mais tey kii ñaari yaar man gëj a bëri moo ma boole moom du question dara mais gëj a bëri moo ma moom. waaw Modou combat bi dafa xam ni maa ngi woo waa parcelle yëpp di gërëm suma waa écurie di gërëm ñi ma àndal ku ci mel ni Neka Diagne Maxa al euh, Adama Mbaye otoom la jël jox ñu pendant une semaine fu ñu neex la dem di ko xamal rek ne ko tey làmb moo am lu mu demee rek moo tax mu ne moom tardé moo ko tax mu bëre man loolu xalaatam la mais man li ma ñor mooy bu bis baba yàlla na ma suñu borom suturaal mais ma dal jaru ngay ñaan ndam fenn man leer na man dama lay daan amul ay nii wala naa lamb boo entraîné am doole gëm sa bopp looy ñaan ay kii ay fii lamb xolol ay ñaan yëpp am na mais entraînement la ak doole loo xalaat boo ko indee muy xeex muy bëre billaay wallaay wa taala dama lay daan si nii dama lay daan si nee xalaatal lu neex la neex wooteel man amul ma expérience lamb jamono jii sama lamb man sama loxo laa koy téye dootuma fi taxaw benn mbër naan ay yàlla ma mel ni wala yàlla ma billaay wallaay wa taala ku ma siy bëree jàpp daal la si nii wala si nee loo yaakaar nag nga indi lu leer laa indi wax na Modou Modou saaga yàkkantee xeex la man jaam jaam bu xeebu damay ñaan yàlla na ma suñu borom may fii ñëpp ay jaam lañu bu dee yàlla rey fii keneen wàccu fi di rey doomu aadama yi mais lii affaire góor yàlla la fii ñëppay ñaan affaire góor yàlla la de billaahi wallaahi wa taala taawal nga jàkkaarloog man maa wax ak yow barki yonenti yàlla bi jarumay waat sax ndax sama doole la yaakaar loo indi dama lay duma dama lay daan force nag force. waaw bàyyi bàyyi micro bi waayoo. Modou ma xaaroon naa lii barki yonenti yàlla ma xam. Hmm? xaaroon naa ko mais nañ ñaan yàlla rek yegg ci si jàmm yàlla may man damay ñaan. man jaam laa liggéey. man ma ñaan sama doole laa yaakaar dama lay jàpp daan la si nii wala si nee ma la wax. waaw wax benn wax ne damaa liggéey kenn du ko wax nañ bàyyi ba nga xam na boo xam ne yow da liggéey te damaa liggéey bàyyi ba bis bañ sumeeku loo yaakaar laa la wax ak loo munti indi billaahi wallaahi wa taala sama loxo laa koy teg une fois nag domicile la nekk il fallait mu def nii. waaw hmm. ah, dafa recevoir dafa recevoir. billaahi wallaahi wa taala bu doon loolu la kon su may ñëw fii du xaj. billaahi wallaahi wa taala ba may ñëw wow ma nit escouteur laa fi indi. yonent yàlla Muhammad xam ne ñoo la ëpp mbooloo. soo woote woon ñu woote dañ naan lan moo xew fii. man li ngay wax de. mais da ngaa am domicile nga ma fekk si. ba may ñëw déggloo ma de. bëgg lu sama bis bi. lu rafetal. ànd ma benn mafia boo yëpp a ngi nelaw xalaat nañ leneen. ba may ñëw barke yonent yàlla bi sama scooter laa taal indi ko fi bu fekkoon ay affaire la yëngal wala yaa quelque chose kon su mu ñëwee fii billaay wallaahi duñ fi xaj barke yonent yàlla bi. man bi ma ñëw otolaa laa ñëwee loolu lu wax ay yëngal fi ay yëngal fi amul njëriñ nañ baax ba làmb ja woote leen. di woowaat monsieur le maire comme niñ ko waxee ñun monsieur le maire moo ñu jël ñu nekk si ginnaawam bu dégg bëccëg suba ngoon kon ñun monsieur le maire amuñ moom xaaj ak seen. liñ bëgg la lay def ndax ñun ko fi baax monsieur le maire ñi nga yóbbante dañ la ko wax buñ la ko waxee naa la ko wax buñ la ko waxul man dinaa jàkkaarloo yow wax la ko dañoo bëgg stade bi nga jënd billet yëpp nga maye porte yi géejewaay ñëpp def ko jur boobu c'est la fête la jëb comme d'habitude yow suñu grand nga suñu lépp nga élément géejewaay nga kon li la war li monsieur war si loolu la waree ak Néné Fatoumata Tall jël leen billet yi ngeen maye stade bi porte ouverte géejawaay ñëpp génn en masse ñu def jour boobu en fête di masaw nag Balla Gaye 2 duñ ko masaw sax ndax ñu ñoo nekkoon ak moom diiran mais suñ borom lu mu namm si doomu aadama loolu mooy amb di ko ñaanal yàlla am na yeneen sorte yu ne si kanamam mu defar waat xam ne mbëru làmb la làmb ji am na fi waar Aziz Ndiaye sama patron Zador mu ngi lay woo si combat bi nga ñëw jàppale waa association bi nekkaat seen ginnaaw xam ni géejawaay la géejawaay moo xewle doomu géejawaay ñoo koy bëre képp koo xamante ne yaa ngi nekk waa nekk fi autorité boo déggee lii xamal bul xaar ñu woo la yaa xam opposant yaa xam loo mënti nekk ndax ay doomu géejawaay ñoo fi nekk dafa gën jugee ñun ngeen wax kon nag loolu mooy suñu appel. waaw Modou maa ngi gërëm waa Escale fi may liggéey bu baax di gërëm waa parcelle ku ci mel ni Mam Mor Touba Océan Décor xam nga euh, Mam As borom level studio maa ngi koy gërëm bu baax daf may jàppale bu baax di gërëm waa kii waa Pikine yëpp. waa Pikine yëpp maa ngi leen di gërëm di leen woo ci combat bi grand Umar Guissé nga jàppale sama booy yàlla may ma ndam ci kawam. waaw di woo ñëpp suñu waa ko ñëpp waa 27 surtout waa vingt maa ngi leen di woo ñu def mobilisation waa indiwit Mansour jamba moo yor kii fan ci club bi foofu maa ngi leen di woo ñu jàpp ci combat bu baax nga xam ne euh, àdduna moom lu ci tëw xam dafa yàggul lu am bis rek yegsi na. saa waa garage maa ngi jégalu ndax dama yow dama fàtte sànq sama waa garage waa ancien piste ba ku ci mel sama patron bàcc Pape Mandiaye sama gars waa ancien piste ba ñoo xam naa ñu ngi pare combat bi en ñoom ñëpp nañ ñëw jàpp ci combat bi sama waa koñ waa géej waaye duñu xaar ma leen di woo ndax ñoom bañ déggee affaire rek xam nañ ni mooy loolu jeex na sama sama doom Anita démb daf ma doon dama doon feete sama anniversaire bu di xaalis bu bari teg ko sama loxo barki alxuraanu karim di ñaanal Anita bu baax jàmm jàmm bu bari yàlla yàlla defal jàmm di gërëm sama yaay ak sama soxna. mbokk yi rendez-vous bi le 9 janvier lay doon ci fii ci stade yom ci stade Amadou bu Guédiawaye en direct lay doon sur la 2 vi Ndiaga doole ñaari yaar j'adore ñaar yaar ñoom ñaar ñoo koy bëree mu doon combat bu am solo. ànd doole làmb moo ko woote drapeau monsieur le maire Aliou Sall Lat Diop Amadou Hott ak ñeneen ñu baax ñu nekk Guédiawaye jaajëfal nañ leen rendez-vous bi c'est le